yaay yow la Serigne Bamba yaay ci nun ngan ji baay ci ngan yaay yow la borom bee la fay gëneelam yi tey mu jóg sàddi way way la yi lay mbóoti yi lay mbóot yu boor yi lay xaddi xabi noor fabal buur jox la yi lay mbóot yu foor yi lay xabi noor fabal yàlla buur jox la نصرت الهدى نفيت الخلا خلا أقمت الصلاة ليلا دنگا سم دنگا دنگا سوغو دم ba peyum ngërëm nga génnaale ndam ndam la di way yonne nam ba def kuutalam mu fab ay mbiram fay la di way alxuraan ba fab leer ya naan ba tax gaaya daan naw la sa piyu boroom amoo fay moroom ku lay suuru ma fasay ndaw di biiw ñëwee duñ basiiw ñëwee noonu siiw gis laa la gaayam yi seen ba far dëkke teen ku bañ doo ko seen mbir la la gaayam ya laal far dëkke aal du ay xiila xaal mos la la gaayam ya jéer ba far dëkke diir la bën nañ ca biir sëb la ba muy wuy ji ba dar ñaan ko dar tubaab yaa ngi ko wër mbër la ba daam nee seet sëriñ sépp siit ngir tiit ga jarla commandant baglate mo fam ñeppute commandant bana commandant ana Serigne Sankona yow la commandant late ñoom ñépp te su ngeen lañ ba te mbir la la tax ñépp dem ñu fak Bamba lëm xarit nan ko lëm yëpp la ba ñuy waaw su nangoon ne waaw gabang duñ ko laaw fit la su nangoon ne way sëriñ soosa tey yam moomi way way la ba géej di way ngëm ji géej tubaab yaa ngi ni ngéej rey la ba ngay dem Dakar ña ngay rabbi mbaar ña lakki naar tay la sëriñ bee di sëriñ tee di jaay ña gaay kenuk diine naay jam la gisal nag gisal gisal nag wuure wadoon bëgg rey malaaka rey mag la ba muy tëb ba jub sëriñ Bamba ëpp la far yam ci jibriila keroog lañ ko fay mu am nag yu rëy safar lañ faray nag la keroog lañ faray keroog lañ ko fay mu am nag yu rëy safar lañ faray nag laa masha sëriñ Fadlu Kan na bëy ji ànd ak sargal bi ko defee ñu wéyal liggéey bi sëriñ Abdou Lahad fan yi sedd na lool taaral nga jataay bi macha allah yal na yàlla yàggal taxawaay bi te wéyal la jërëjëf sëriñ Fadlu sëriñ Abdou yow bégaan nan ci yow wile way du sew mbir la sëriñ Abdou yow bégaan nan ci yow wile way du na sens amoo maas wax la waaw jërëjëf jërëjëf ah, ah, allah sëriñ Abdou jërëjëf bég na lool jërëjëf amin sëriñ Mbay ñàkk sikk nee kalpeem dafa réer ku jóg di maagal li yàlla maagal des na la maagal danañ la jiital